ci xarañam ci julitem ci mandoom loolu rek wone lu bari keroog bi cion laxo bo demon ci almeer yi ay jigen ngeen sax man mu ko gis mbolo mi ni tok donc loolu mooy la wan leen nitu yalla ñi ngi ci bir nit ñi mais nit ñi duñ leen voilà dama mën sori nak parce que vraiment donc c'est des moments émouvants mm-hmm. parce que xajon na fi bëf xajon na fi dé mais nak lii la yalla dogal alhamdoulillah bi alamin yal na yàlla faral di àddina maa ngi koy waa waa yëpp waaw gënoon naa ko jarul def publicité non yàgg na bi ma ko bi yàgg na ma doon xaar moment bi voilà di génn ko voilà mais dañuy fekk ñoo fi ay ay ñu wàññi ko comme Maguette Wade di ko Sénégal yëpp ndate bu bu bu TFM yé démb donc yooyu yëpp xam nga bu la bu la gàllankooree voilà dafa am lu lay manqué ba xam ne doo fi nekk temps bi def ay kii quoi moo tax je l'ai copié je l'ai envoyé en attendant incha allah su ma amee jot je vais faire une pour ça mais bon li sëpp solo rek mooy euh, voilà xool yaa ngi doon gisee xool yaa ngi xool continué gisee ba léegi xool mu tëdd xam ne ñu ngi gise waaw mm. ah, yàlla yàlla xaw a